waxtu wa daa jot jotati jotal waxtu xibaar yi ci kàlla mooy kocc ci leeru jamono ñu nuyooti leen bu baax yéen ñi sopp safoo saxoo taate nañ xibaar fii ci Walfu TV di télé bi lambooy xar baax te koy wasaare fépp ci adduna li gën a fees ci bopp xibaar yi mu bokk ci woo gi ñu woo kii di jaraaf ju Ndakaaru Khalifa Sall ca suba ba léegi nag muy giseek ñi nga xam ne ñoom ñoo tooge dikk di division des investigations criminelles lañ bëtkat yi nag boobu léegi ñu ngi wax ak moom ñi nga xam ne ay waay politique lañu ñëw foofee di ko indil seen ndimbal di layokatam Maître El Hadji Diouf wax ne kii di Khalifa Sall dañ ko dañoo salfaañi akam ak yelleefam loolu nag moo waral mu digal ko ne ko ñu la laajee bul tontu lenn ci la nga xam ne nii moom lañu lay laaj mu bokk li gën a fës ci boppu xibaar yi Sinthiou Diongue di dëkkan bu nekk ca Boli Dialoubé foofee nag la ñàkk bari na bokk na ci ndox courant waaye li nga xam ne nii moo di forage bañ nga xam ne nii moo fa nekk askan wa bëgg mu noppi ci nu mu gën a gaawee te nag gëstu leen ci lépp ndax ñoom ci réew mi la ñu bokk mu bokk li gën a fës ci boppu xibaar yi kii di Ibrahima Founé ñàkk ñàkk Eliman Founé ñàkk bakkanam ca commissariat bu port loole nag nekk loo xam ne nii ay askanam taxaw di laaj ñu uh, daal amal nag ay lañ bët ngir xam ci yan anam la ñàkkee bakkanam nam sax takk deri dañoo wax ne nag moom dafa uh, fàtt boppam maanaam dafa xaru lii moo doon li gën a fes ci bopp xibaar yi su ñu ko faram-fàccee toftal ci xibaar yi biti réew yi mu daal di buur ñu ñaanalante neski suñu tàbbi ci faram-fàcce gi bisimila àdduna wërngal képp ni ñu leen ko waxe woon ci boppu xibaar yi dañuy doore xibaar yi nag ak woo gi ñu woo Khalifa Sall di jaraaf ñu Ndakaaru ci suba ba léegi nag mu nekk fële ca dikk di wuy ji lañ bëtkat yi ki nga xam ne nag moo di maître El Hadj Diouf di layoo katam daal di koy digal ne ko bul tontu ci lenn li nga xam ne nii moom lañu lay laaj ndax say ak ak say yelef nag day dañu ko salfaañi yi El Hadj Diouf ñu lu ko ci mikro soxna Xadi Silla procureur ñun ñaanuñu dara ñaanuñu tus dañ yoon nañ ko respecté yelleefu xalifa Ababacar Sall kaam toog ci wetam liñ koy laaj ñu fekkee ko pour ëllëg ñu muy garanti loolu rek lañ laaj loolu nag duñ ci yëg ci procureur duñ ci yëg ci ministre duñ ci yëg président yoon la boo xam ni dëpp un mois la ba ci assemblée nationale kenn mënu ci dara kon tey ma yëgal Sénégal ni en tout cas commissaire de police bii ñu gis tey moom nee na moo tey li yoon may Khalifa Sall moom du ko may léegi nag ma ne ko léegi man Khalifa Sall du xam sax ne man avocat am laa mu ne may naa leen da nga nuyu ko génnaat man nag bi ma ko nuyoo ba jox ma loxo gis juróom-benn ponkal wër ko di ay enquêteur ma ne ko bul tontu kenn comme ñoom li la yoon may nanga wuñ la ko bul ubbi sa gémmiñ di wax ñoom loolu laa lay ñaan en tant que borom xam-xam ci yoon ñu jaay la doole li yoon may ñu nangu ko kon mu leen yombalal mbir mi di leen tontu mu mel ne ngaa ñàkk fayda te yaakaar naa ne bi ma ko waxee léegi defe naa bi ma génnee yaakaar naa ne xalifa du leen tontooti Euh, soxna Khady Sylla ñu des ci mbirum euh, Bamba euh, Khalifa Sall mi ñu woo foofe ci dikk way politique yu bari nag dikkoon foofee doon ko indil seen dimbal wax ne nak lile du lenn rek lu dul loo xam ne nii njiitu réew mi Macky Sall moo ko sooke ngir mën a néewal doole xalifa Sall waaye nag li nga xam ne moom la naal dina saxal kujje gi kenn du ko ci seetaan soxna Khady Sylla tase na ak ñenn ci ñoom. Khalifa Sall fu mu toll nii mi ngi jàkkaarloo enquêteurs yi nekk ci dikk maire Dakar mu daal di war a indi ay leeral ci li nga xamante ne ay fonds d'avance mu nekk xaas bu bari ñii di farandoom yaa ngi wax ni boo gisee woote bi dara wundu ko lu du gën a faagaagal Khalifa Sall ci élection législative yi. di ñaawlu lii di complot ngeen xam ne ni kii di président Macky Sall ànd ci ak ay kàngam ñu bokk ci parti socialiste complot bu ñu lal lal complot boobu pour liquider kii di Khalifa Sall. pour ŋaññi xalifa Sall pour dëkkaloo xalifa Sall fu mu bokkul askan bi ñëpp xam nañ que képp kuy kilifa bu yor institution bu mel noonu dañ lay jox ay koppar yu nga xam ne ni dafay nekk ci lu ñuy woy ci tubaab régime dérogatoire ma bëgg nag Macky Sall déglu ma day nax boppam laa wax dinañ bokk ci élection yi mu neex ko dinañ ci bokk mu mu bañ ko dinañ ci bokk wax ji nag moom na xam plan ñun xam nañ suñu bos lu mu ñu yéene nag mooy ay lu mu ñu mooy fitna. lu mu ñu yéenee mooy kaso dina xam ne ni ay doomu gaynde njaay lañu te lu mu ñu yéenee dinañ ko ko delloo te lu duñ ci goobe na gar ko. nun dañoo jaaxle ci réew mi ndax réew moo xam ne ku ànd ak président Macky Sall ñu la fekkoon ci ay armeer ngay seeñu yàqu liir sax dara du la ci fekk waaye ku àndut ak moom rek ñu ngi lay pexeel ñu ngi fàttali président Macky Sall rapport IGE yi nekk ci kaw taabalam rapport nag yi nekk ci kaw taabalam nga xam ne li ay collaborateur am yi nga xam ne ñii ñi ngi toog sax ci conseil des ministres ak moom rapport yooyu épingle na leen ñu mel ni ay directeur COUD nga xam ne rapport OFNAC dafa ne kii waratul sax diriger ab ngunu ci Sénégal rapport yooyu na ko transmettre procureur ñu ngi koy xaar. Moussa Sy daal di ñëwoon jàppal tànk naataangoom bi mi ngi xamal ni bu doon moom la du daal di tontu benn yoon ci convocation bi. li ñu ko woo fii tey jaaduwul moom nag républicain la c'est un grand maire c'est un boo booy wut homme d'état Sénégal. da ngay dem si xalifa Sall c'est un homme d'état moo tax mu nangu ñëw wuy man bu doon man Moussa Sy du si parce que du ma ñëw wuy si ay fonds politique mairie de Dakar am fonds politique depuis 1960 Mamadou Diop jaar fi ma fekkee ko Pape Diop jaar fi ma fekkee ko ñu siy jox kër diine yi di si jox miskin yi di si jox ñu feebar sénégalais bu ñëw Dakar sax bu dëkkul Dakar boo ñëwee Dakar boo amee jafe-jafe tout suite boo war a soxla faj bu soxla bu jàmp mairie Dakar ngay daw wut audience ci Khalifa Sall wala ci Pape Diop wala ci Mamour Diop ñu fajal la ko ci fonds ci fonds yooyu c'est des fonds politiques je le dis. wuyu bi Khalifa Sall daal di def waa dikk ñëw na daal di yokk ci liste judiciaire ñi nga xamante ne ñi ngi am ay ñagas-ñagas ak yoon te ay weer dong daal di des ci élection législative yi. jërëjëf soxna Khady Silla xale bu góor bi fekk baax ca yëmbal di Ibrahima Elimane Founé ñu fekk ko nag mu ñàkk bakkanam ci commissariat bu nekk foofee ca port ba tey nag xamuñu ci yenn anam la ñàkkee bakkanam waaye li askanam bëgg rek mooy ñu daal di ubbi ay lañ ba ju yaa ngir nag mën koo leeral ba mu leer ndax la nga xam ne nii moom la ci takk der yi wax dara doyu leen ci ñu teewlu ci kii di nijaayam Babacar Cissé ci micro Théodore Semedo. teg na tuub diggante une heure et demie deux heures fi waa commissariat yëmbal ñëw fekk ko ci biir kër gi na ko yow lañuy seet ndax da nga am contentieux boo xam ne danga nga war a wuy ji police mu ànd ak ñoom dem commissariat yëmbal ñu teg ko fa ne ko xaaral apport Molde ñëw yabal benn agent ñëw jëlsi ko ñu ànd ci taxi dem police ba peine perdue la ndax commissaire nekku fa commandant nekku fa adjoint nekku fa dañ leen bàyyi ba suba huit ñu dem ah ñu nit ñu d'accord ci loolu juboo ci ñibbi bàyyi fi waa kër gi ñu demee ba ay vingt heures ku ci portable Ilimane woo petite sœuram bu ñuy wax Mami Touré ne ko Mami Touré mu ne ko ah, ñu ne ko yàgg mu ne ko ah, Ilimane sama mag la ñu ne ko ana sa papa mooy leen sama papa nekku fi ñu ne ko kan moo fi nekk di góor mooy leen attends benn rakk ma ngi nii sama benn mag a ngi nii bu ñuy wax Lamine Touré mu jël téléphone bi jox ko Lamine ndax Lamine ak Elimane ñoo bokk ndey ak baay Lamine ne ko kan la mu ne ko man la policier bu nekk commissariat port Molde dañu bëggoon fekkee góor mi ngi ci kër gi ngeen ànd ñëw commissariat fekk. soo arrivé là-bas vers vingt et une heures trente bi ñu yeggee fekk fa policiers yi ne leen ñun ñooy frères yi. la woon ñu leen ah ndogal de def cee am ñu leen naa ah, ñu leen Lamine Elimane Touré mu deewee. ñu leen de fa xaru comment nu mu xaru gëm nañ sunu justice su dëkk suñ defee autopsie bi déterminer les causes réelles de sa mort ah incha allahu rabbi ñu xam lan la ñun daal li ñu bëgg mooy xam lu ko rey Théodore Semedo fële ca Yëmbal Sud ak jàmm gën saxaar gi nga xam ne nag dañ ko war a indi ci réew mi duppee ko train express régional mu war a lëkkale gox yi nekk ci réew mi indi na ay jafe-jafe ca goxaan yooyu la li ko waral nag mooy li nga xam ne nii moom la ñu a jox ci koppar askan wa fa dëkkee ngir ñu tuxu bàyyi saxaar ga jaar fa dañoo jàpp ne nag dafa néew loolu tax askan yu yëkkati seen kàddu di wax ne li ñu bëgg mooy njiitu réew mi Macky na fa na ne moom ñu ko sooke ci la bokk Ibrahima timido lii tey mooy jaaxle waaru parce que tey train boobu dafa mel ni dañu embarqué ci teer boobu te ñun xamaguñu fan la ñuy teer yi looku képp kuy boroom kër dëkk plus de soixante ans say sët juddoo fa say doom juddoo fa ñu xëy benn bis ni la taxañ ni la demal xamoo foo jëm ba pare lan la jox sax da matewul sax matewul boo demoon ba Bambilor sax mënoo faa bokk ci biir dëkk ba ci ginnaaw dëkk ba ngay dëkki toog di xaar nit ñi ñëw fekk si la fa donc te ñun amuñu beneen vie bu ñu recommencer dañu def plus de 60 ans fii donc dañu fi war a jóge demaat dëkkaat fu nga xamante ni ay nit a fa dëkk suñu activité du continuer ak suñu activité njaboot loolu ñun moo ñuy soxal te dama gisagul programme bu nga xamante ni tey bi ñu wooyee fële si en à notre grande surprise puisque réunion boobu en queue de poisson la terminé fa ñu tàmbalee ba ñuy waxee ba daaneel ñëpp dañoo jóg dem seen yoon parce la ñu doon wax nit ñi gisuñu seen bopp parce que borom kër gu toog pendant tout ce temps nga xëy wax ko ni ko ni da ngay jóge fa nga nekkoon mais amuñu fu ñu la yóbbu proposé wuñ la dara ni la fii ngay jëm maanaam da ngay jóg rek dem taxawaale ji wuti foo nekk. beneen bi ñu ni la li ñuy jëndee sa terrain dix neuf mille deux cent la parce que fii zone bi yëpp ak quatre vingt quinze pour cent ay amuñu ay acte de vente la ñu am ak ay titre coutumier buñ ñu fa bëggee jëlee. fay ñu dix neuf mille deux cent carré maanaam terrain boobu cent cinquante mètres carré bi dikkee leen dikke ñu deux millions huit cent cinquante mille kooku mënuñu fi am terrain ci zone bii fii sax amatul terrain far liñ ñu wax ñun dalul suñu xel teg buñ ñu ko joxee mooy tas nañu suñu njaboot ñu ànd di taxawaalu nag ba ilaa yow diin abadan su ranke gi nga xam ne moo leen nara a yot yot seenu njaboot te xamuñu fu ñu koy jooytoo ñu ne nañ ko jooytu auprès du président de la république moom mi nga xamante ni moom moo initié projet bi ba mu yëg ko ba xam ni kat ah njabootam gii de la mu nar a defar na mu rafetee yëpp am na ñu ci nar a loru est ko continuer fii foofu la ñu jëm jaajëf Théodore Semedo ñu wéy dem ca balay balay dib goxaan ca campement Ngexoox foofee nag la fa ñàkk bari na bokk na ci ndox mu sell mu ñu mën a naan courant jaaruwaay yu méngoo ak jamono waaye la ñuy ñaawlu mooy lakk yu bari yi nga xam ne ni danay faral di am ci seen goxaan boobule ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ah, sapeur pompier yi tamit ñu leen di woo ñu gën def seen kéemtolluwaay kattan ngir nag loolee bu amee ñu ci mën di indi saafara nu mu gën a gaawee Thierno Daf Euh, mu mel ni euh, élément boobu jàppandiwul dañ ci dellu si xëy na laata xibaar yee buur wala ci yeneen jotaay xibaar dem ca jonge a dib dëkkaan bu nekk ca Boli Dialobé foofeet la fa ñàkk bari na bokk na ci ndox courant bërëbu fajukaay euh, bu méngoo ko jamono tax askan wi yëkkati seen i kàddu di ñaan njiitu réew mi gëstu leen rawatina jëwriñ ji toogee faj beeg faju mi ndax ñoom itam ci réew mi la ñu bokk abbukan yi di benn gox bu nekk ci arrondissement de Saldé askan yu fay yewoo ñooy laajte ngir seeni dëkk bi mën a am ay jumtukaay yu am maana dëkk bi nag tey ginnaaw nu mu màggee te mu waroon am le minimum wante ñàkk am ku leen taxawal tax na tey que dara amul ci biir dëkk googule Idrissa Omar Anne jiite dëkk bi di ko firndeel. waaw ci wàllu école am nañu xayma macha allah dañ bëgg na jàng école mais amuñu amaguñu woon école mais règle nag am nañu quasi tout petit mu ngi fi mais bu doon suñu sax ñu E école pour haali yimɓe mun o janngo si école ɓe par ce que jongi hawna fi surtout naajji defatanga so haw so fette naajji tangan ne ko sali ciwallu ndo waw ciwal ndo bugg nañu bugg nañu forage parce que am nañu forage sikkiti mais forage sikkiti bi doyul parce que dafa servi dëkk yu bëri forage bi doyul parce que dañu bugg suuf si nekk fi ñu aménagé suuf bi pour ñu aménagé suuf si pour ñu def si forage bi pour ñu ñu ko xam nga loolu ndox bu bari ndox bu bari la laaj bugg naa si ko encore forage maa ngi wax nguur gi nañu gëstu si Sinthiou Diongi fii ci Sinthiou Diongi ginnaaw dëkk bi bi ñu ko sosee musul am école branchement dëkk bi ci courant a taxul mu faj soxla askan wi fii nag xam nga dafa lëndëm fii dafa lëndëm lëndëm moom bu nekkee fii si lëndëwaay bi moom mun nañ am ay agresseur daal dañu bugg courant parce que courant carte bi defa seer baaxul dañu bëggoon nguur gi ñu wàllu ñu si ñu dimbali si si courant école xale yi ñu mun a jàng si école bi parce que jongi xaw na fii surtout naaj bi dafa tàng su xaw sa fekkee naaj bi tàngaan nekkul xale bi di fàttali rek yenn complainte yi askan wi ñu ko jot a yëkkati ginnaaw bi ñu doon amal inauguration jàkka bu mag bi ñu doon tabax fii ci Podor seen nattangaabu kan pour la jërëjëf Abou Kane ñu dellu kon ca balay dipp euh, goxaan bu nekk ca ngee Ngeexoox foofee nag la fa ñàkk bari loolu bokk na ci ndox mu sell mu ñu mën a naan courant jaaruwaay yu méngoo ak jamono waaye lii di kaaraange amu fa li nga xam ne it moom la askan wi di ñaawlu mooy lakk yu bari yi am ci seen goxaan boobu boobule ñuy ñaax ñii di sapeur pompier ñu def seen kéem tolluwaay kàttan ngir nag bu lu mel noonu amee ñu mën cee am ay saafara nu mu gën a gaawee Cerno Daf nous voici à plus précisément au quartier Balai. Ici, l'électricité est encore une denrée inconnue. nombre ñu ngi fi ci diiwaanu campement Ngeekoox rawatina ci quartier bu ñuy woowee Balay fi sondel moo fi gën siiw lampe courant courant bi manqué courant bi manqué na puisque secteur yi dañu am yee amuñu dégg nga problème boobu moom lañu am fii kaaraange moom fii mu nekk ni aussi xam nga amut puisque amut kaaraange amut puisque fii rek amoon na ay temps yoo xam ne da ngay xëy fekk ay béy ñu ngi leen ñu ngi leen euh, pare ñu fees leen dem yóbbu kii bi sànni doom yi foofu dégg nga ay sàcc ak yu kenn xamul yooyu yëpp am na fi waaw problème boobu am na fi waaw lu weesu dégg-dégg ndox mu neex nekk na gént tam ci diiwaanu quartier Balaye bu Ngeekoox waaw hôpital yi tamit xaw nañoo sori sori nañu courant bi sori na ndox mi sori na. ndox amuñu ndox amuñu courant. nekk ni dañuy dem jukki si teen yi ñëw toog di xaar lakk bu tàkkee ñu ñëw sotti sàppoor musuñu ko fee gis. ndox amuñu ndox. jëfe jëfe yooyu yëpp nag ñëw fekk lakk yu kenn xamul fu ñu bàyyee ko ne leen ñu dandu ñu toog ci diwaanu quartier Balaye. du armoire du màll du dara lu des. deseetuñ dara dégg nga lépp lépp lakk fi mu nekk nii juróom benn kër sax bi mu nekk nii yëpp dañoo lakk même bii ci gannaaw sax fii ci suñu gannaaw boobu tam daa lakk. waaw monsieur ñëwoon na. waaw monsieur le maire ñëwoon na monsieur mu wax. monsieur le maire moom daa ñëw rek jox ñu neexal demaat. dañu jékki-jékki rek mu mu takk da ngay fay léegi nga génnaat après léegi nga dem balaa ngaa sori ñu woowaat la ñu ne mu ngay lakk. fële moom léegi war a mot ay juróom eh, juróomi weer daanaka lu mu commencé fee daa yàgg di am ci koñ bi. yàgg na am ci koñ bi puisque li mu war a mot ay ñeenti weer yàgg na am ci koñ bi puis sapeur pompier mosul ñëw mosta ñëw ñun ñooy sapeur pompier toujours kay ñu ngi gàddu ay paan ak ay siwo di fay sapeur pompier mu mosta ñëw. bugguñu ceeb bugguñu dawlin lakk-lakk bi lañu soxla mu jóge ci koñ bi indi ñu courant ak ndox loolu lañu soxla. ni ñu rafet rafetloon dimbal gi leen seen maire di indil bis bu yàlla sàkk noonu la askan wi ñaaw loo tam. fàtte gi leen nguur gi fàtte mbuur Ceerno daaf radio télévision Walfadjri. jërëjëf Thierno Daf Oudoukar Pakar Janaba di ay dëkkaan yoo xam ne nag foofet la fa ñàkk bari na tax askan wi daal di dajaloo def benn ñaxtu bu mag la nga xam ne nag wax nañ ko mooy li ñu bëgg mooy lii di courant am ci seen dëkk boobu ba doy ndax nag courant bi bu amul day gàllankoor seen karange ndax nag foofee waaye ñawte fii saa su nekk dañuy faral di amal ay cong di ko jëme ci askan wa kon nag mu jot ñu jug ci nu mu gën a gaawee Lamine Bayo. élément boobu jàppandiwul ñu jàll ci euh, beneen dem fi nga xam ne nag moo di euh, ca euh, diggante Kulor ak Demba nekk ci Ferlo foofee démb bi ñeenti waxtu jotee ñeenti ñëwaay ñawteef ñoo fa nag daal di galang dem beeg dikk ba wàcce ñëwoon ca Damaria bañ leen wàccee jëma yi lay sox ci ñoom ba mu am ñaar ñu ci jëlee ay gaañu gaañu yu metti nekk ci diggante dund ak dee san Diallo ñaar ñu am ay gaañu gaañu yu métti di benn soxna ak benn góor ñu rawale leen ci l'hôpital bu mag bi nekk ci diwaanu Tambacounda mu doon cong bu ñeent samba booy yore ay gànnaay amal ci yoon bi jëm Damamba toll ci juróom-ñeenti ak diwaanu Kulloor bokk ci département wu yi booru ñeent waxtu ci altine ji samba booy yi muur seeni kanam taxawal ay woto yu bëri jóge woon ci luuma koccaar yi mbir mi daal oto yi ñoo fi jugee départ mu demee ba wàcc Ranran à un kilomètre de Ranran bandi kar lañ ñu ngi oto premier oto dañoo ñëw ñu arrêté ko tëddal leen ñaareel oto ñëw ñu arrêté ko tëddal ko ñetteel oto ñëw ñu arrêté ko tëddal képp oto bu ñu arrêté nag dañ koy dugal si ñax bi déshabillé gars yi tëddal leen bàyyi oto bi vide avant dernière bu mu ñëwee léegi bu ñu déggee bruit oto ci la gars yi si la benn pas révolté mais ñu ngi fii si ñeenti oto gars yi bu ñuy rey nañ si rey ñaar wala ñu rey ñett ñu révolté jàpp leen si la gars yi déggee loolu ñu daw bu ñu dawee di dem nag booy chauffeur bi léegi nag gars yi topp leen booy chauffeur bi koñaas leen pour jéem leen jàpp tiire ko buñ ko tiire bal bi dal si loxo doora ñëw dal si tànk mu doon beneen cong gannaaw ba ñu nemmeekoo bu amoon ci cara bokk ci diwaanu bala di lal ci suuf ñàkkum kaaraange bu askanu Goudiry di gis tax ñuy dellu di yëkkati seeni kàddu jëmale ko ci njiit yi nguur gi maanaam daal dimbalewuñu parce que yoon bi fu mu nekk ni kaaraange amu ci sécurité amu ci nguur gi buñ leen wooyee balaa ñoo ñëw day fekk bandi yi dugg nañ ci àll bi te buñ ñëwee si jéem a sax topp yi buñ ñëwee ci saaj yi foofu ñoom la ñuy jëm def seen constat dem wax dëgg yàlla dañoo sonn te dañoo tay te ñun dañuy liggéey ak pël yi te pël dañuy indi seen nag indi seen seen xar yi bu ñëwee dañuy jaay Alassane Diallo Goudiri rajo télévision Walfadjri jërëjëf Alassane Diallo ca goxaan bi di Abdou Ndiaye nekk ca jàmm gën si Kambaaw foofu le nag askan wëf dëkk ñaawlu nañu bu baax li nga xam ne nii nguur gi def na ko di defar ay canalisation ay jumtuwaay yoo xam ne nag dana tax koñ yeeg koñaan di gën a set ñu ne nag dañoo fàtte seen dëkkaan boobule mu jot nag nguur gi gëstu leen rawatina jëwriñ ji yor wàll wi ndax ñoomitam ci njaboot gi lañu bokk la nga xam ne it ñaawlu nañ ko mooy waay politique yi nga xam ne nii dañoo jël jumtuwaay bi ñuy defaree carte d'identité yi daat koy akimoo mel ni ñoom rek ñoo ko moom te nag ñoom itam am nañu amuñu baat ci réew mi Ibrahima Khalil Thiam lañ ci lu ci micro Théodore Semedo. loole ci jafe-jafe bi ñu ko seetloo mooy inondation bi ndax ñun képp lu ñu xam yëpp ñun ñu xamee yëpp ci wàllu inondation lañ ñu xamee mais yàlla dogal président Macky Sall euh, génne lu mat 23 milliards def ko ci euh, Pikine irrégulier si pis mais nag ñun euh, manque chance bi ñu am mooy projet bi dafa ñëw ba suñu buntu koñ fa la première phase bi bi ñu xoolee ne fay ndox mi daan jaar euh, di jàll dem ci kanaal bi kanaal bu bees bi ñu ci defar ak euh, euh, bassin bi dañ ko fat léegi nag ñu xam ne deuxième phase bi balaa muy commencé mën na jël temps te diggante boobu nawet mun na fee jaar ñaari nawet mun na fee jaar te bu fekkee ne nawet jaar na fi ñaari nawet jaar na fi te ñun sunu secteur bii ñu dëkk daanaka ndoxu jàmm gën gépp fi lay daje si comme fi lay daje si nag bu musaan daje dañuy gas mu ñëw Euh, def direct ci canal bi te ñuy defar canal euh, canal bi baare nañ ko seen tali bi ñu ne nag jub jot na ci loolu la ñu woote euh, woo kilifa yi woo jigéen ñi woo mag ñi woo ndaw ñi ñun ñëpp ñu daje ne nañu def alerte xam nañ ne phase deux war na am waaye balaa muy commencé dañuy soxla woon nañ ñu utal fii même pas cent mètres ñu utal ñu benn tuyau boo xamante ne day day jokk ci ci ci ci bassin bi dem ba ci point chute d'eau bi Diamaguène Sicap Mbao autorité locale yi fi ne wala autorité politique yi fi ne nañu dox seen rôle ñun fi lu commencé li ñuy wax zone 3 les daaru euh, Fora quartier Abdou Ndiaye moo ëpp ci Diamaguène électoral mais kenn binduwuf mooy euh, fa ñu yóbbu commission bi benn commission moo am ca euh, sous préfecture bi beneen commission bi ñu indi woon mu nekkoon commission bi nga xamante ne moo def rotation ci ci ci gox bi politiciens yi nekk ci dëkk bi dañ ko akimoo dañ ko akimoo téye ko seen gox yi. Euh, Théodore euh, Semedo ca Nioro foofu la nag euh, jegeñaali Karim Wade yi ñoo fa bëggoon a amal benn doxu ñaxtu ñu daal leen koy aaye moo tax nag ñu mere loolu njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram wax ne nag lu dul jaay doole nekkew ko ci réew mi te sax ñoom ñi ngi tiit bu baax ci yoonu Sénégal wi nga xam ne nag dañ ciy jaar saa su ne dina sëxal ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci kujje politique yi Babacar Thiam lañ cee teewlu ci micro Al Assane Ba. nga tey foo dem ci àdduna kenn moo fa nekk muy Macky Sall liñ leen def loolu la ñuy def ñu leen wax loolu la ñuy wax ñun xam nañ li fi nekk duñ ay dof su ko defee maanaam nañ jël dëkk bi teg ko ci république ku war a mars mars ku war a def ref ki lu waay bëgg def ci tam ànd ak ñu def ko mais réew moo xam ne bu ñu demee ba gëmuñu loi gëmuñu sariyaan ci lan lañ bëgg a dund. man damaa jëlee les politiciens mais kilifa diine yi ñoo ko gën a ñoo ko gën a war a défendre parce que ñoom am na luñ gëm nag loo xam ne tax ñu teg fi tam réew. kenn ku ne xam na ne république bu jaar ci yoon moo koy doxal mais kenn ku ne xam na ne Macky Sall moo yaay ak jàmme naatangoom bi benn lañ dictature cent pour cent ci lay yore réew mi te loolu nekkoon na dakk parce que ñun ay gor lañ dañoo bëgg ku ñu yor ci yorob gor si bi kay dañoo bëggoon benn karawaan a fay pour ñu def ko parce que kenn ku ne xam na ne législatif yi lu nekk nag mën nañ koo teg mais carte rek moo Sénégal moo fi moo fi jëlee moo nit mais nag ci biir carte yooyu nag am na leen lu ne ci biir parce que fi ne nii ba min wi boo demee am na ñoo xam ne ñu ngi bindu te te fu ñu xamee ne karimis yi ñoo fa ëpp wala waa dis yi ñu ne machine daa pan yanu yóbbu xam nañ na loolu loolu xam nañ ko système mu sàcc ay ay élection kenn mënatu ko defee Sénégal mais ci système bi la ñuy sàcc jaajëf Al Assane Ba ca Touba Ndiarème foofu le nag ñi fari ci kuréelu politique gi di Benno Bokk uh, Gis-Gis ñoo fa amaloon uh, benn lëlu bañ ci génnee nag la ñu xamle mooy uh, ñi ngi wax ne nag li ñi nga xam ne moom la ñu naal nar koo demee ci jogante yi dara dalu ci seen xel ndax foofee ci Touba Ndiarème amul benn bërëbu bindukaay boo xam ne nii def nañ ko fa moo tax askan wa mënuñu bindu ni nga xam ne nii moom lañu ko bëggee ñu daat ci porox ndolot wax ne foofee ci Touba Ndiarème amul benn jumtuwaay boo xam ne nii am na fa boo xam ne nii dana tax du nekkinu ñëfa dëkkee cee gën a mën a jàppandi Mamadou Moctar Sarr ci liste électorale yi ci Touba Njaareem si siraat la askan wi dañuy def ay kilomètres du samay kàddu responsable bokk gis-gis yi nekkee ci gox bi ñoo ko yëkkati ñoom nag ñuy ñaawlu li ni mel. ci commission yi dolli commission yi dimbali ñu ci commission bu ñëw fii Touba Héliport am na nag commission bu nekkoon Touba Njaareem waaye dafa boycotté ñun waa Touba Héliport gisuñu ci suñu bopp bët bu set mag ñi dañuy kooku nag defe naa ne coono la te ku ne xam na ne man damaa yaakaar ne président coono boobu sax waru ko woon askan wi ndax 2006 bi fi président Abdoulaye Wade nekk di liggéey carte d'identité yi moo doonoon premier ministre. kon liggéey bi waru ko woon a mën a jaaxal ba askan wi di ci sonn nii mu jàppale askan wi ba ñëpp mën a bindu. ci ndaje mu yaa mi doon amal gars yi Pape Diop yi ne Macky Sall ak nguuram wane nañu seenu télé. réew mi moom dara duxut dara duxut. bi nga xam ne ñu ngi jeexal seen ndaje mu yaam yi ñoom farandey Pape Diop yi dolli nañ ci ñaawlu jafe-jafe yi ñuy dund ci seen gox bi kon bi bëri na jafe-jafe parce que amuñu ndox amuñu courant amuñu moyen amuñu it projet yu jigéen ñi liggéey financement lañu bëgg yu dëgër yoo xamante ni dañ ciy liggéey di ci gis suñu bopp sécurité bon c'est un problème parce que même ce matin j'avais un gars qu'on a agressé ici mm-hmm. hier ce qui veut dire que le Touba Ndiarème confronte un problème d'insécurité. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr ñi fari ci kuréelu politique gi di PDS dëkkee ci Pikine ñoom nag wax nañ ne lépp loo xam ne nii jàppoon nañ ko bàyyi nañ ko takku ba dëgër fas yéene jàkkaarloo kii di njiitu nguurug Macky Sall ndax nag li nga xam ne nii moom la yore réew mi du yoon te nag fa mu ko jëmale buñ ko ci seetaanee ndox du fa am li nga xam ne it wax nañ ko mooy bërëbu bindukaay lañ bëgg yokk ko ndax nag nit ñi bindu bi gën a gaaw am seen ak ak seen yelef waaye lii di jumtuwaay foofee ca Pikine ñu gën leen cee xalaat ndax ñoom itam ah, ci réew mi la bokk Amadou Diarra seen njiit lañ cee teewlu ci micro Théodore Semedo électoral bi moo ngi commencé ci bindu bi mais bindu bi kon ma commencé nañ ci ay sàcc parce que loi électorale bi dafa wax ne commission booy teg opposition bi dafaa war a teew tey boo demee préfecture Pikine am na commission doo fa fekk benn opposant am na commission itinérante yi ñuy def moo gi dox ci département de Pikine amul représentant opposition Macky Sall ak régime am xam ne fii ci département de Pikine jeex na képp kuy responsable PDS maa ngi lay wax na nga leen traqué fu commission dugg nañ fa dugg bu duggee ci kër responsable APR fekk leen fa génnee commission bi ci biti nangu matériel bi. ay Gambien ci frontière bi ak commission itinérante yi ñoo ngi leen di jëli parce que jàpp nañ. président Macky Sall am na lu mu def ci Yaya Jammeh bés bu nit ku warul wote jóge di def ay caravane maa ngi dugg ci oto naan da ngay dugg Sénégal di vote te waru la maa ngi wax opposition bi nañu may ni gaynde na ñu jël seen bakkan teg ko ci bu bëgg a wax rek président Macky mu dégg ko mooy su jéemee wuuri ci élection yi fekk élection yi su Ablaye Daouda jàlloo bàyyiwul ministre de l' intérieur Pikine fii fii la révolution bi di commencé Abdoulaye Daouda Diallo dama koy décréter aujourd'hui ex future ministre de l'intérieur que Macky Sall ba muy nommé décret ci élection yi di jàpp date bi tuddul ministre de l'intérieur ministre bi chargé des élections la def ci décret le dernier article ci biir conscience su Macky Sall ci subconscient am jàpp na ne opposition bi am na dëgg que Abdoulaye Daouda Diallo du organiser élection bi c'est pourquoi libellé bi dem leen ci décret yi nga xool Macky Sall a dit le ministre chargé des élections est chargé de l'application de ce présent décret kon jàpp na ne moom opposition bi dina taxaw taxawaay bu war ba ñu dindi ko ba fal un chargé des élections bu boobaa décret bi duñ ci revenir mais opposition bi xeexam Théodore Semedo foofee ci Pikine xibaar yi biir réew yi buuree fa daal di ñoo def ci croplan yóbbu ñu ci xibaar xibaaru biti réew yeeg soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké xibaari bitim réew yi dañ koy doore ca Irak foofu nag euh, ba léegi song yi ak laale yi mu ngi gën a tar loolu sax yóbbe nag ki nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dawlàq yi ci barab boobu boobule moom nag am na njàqare waaye itam tiit na lool ci ñi nga xam ne ñoo di dawlàq yi fan la ñuy mujjee fi mu toll nii juróom-ñetti la ñu fa def lépp nag ngir mën caa teg ñi nga xam ni dañoo dawee seeni i kër waaye itam ak seeni i gox ndax combat yi juróom-ñaari kaa yooyu fees na dell ba sax ñoo ngi bëgg a tabaxaat beneen camp mu mel ni daal suñu deful ndànk lu jëm ci dawlàq yi lim bi gën a yokk ci dëkk wooyee Mossoul fi mu toll nii nag gis nañu ne xeex bi tax na ba ñii di arme bi wala sax takk dër yi féetewoo ci nguur gi ñu ngay dox di jëmali te l'aéroport ba lépp nag ngir fexe faa toxal ñii di jihadiste yi te ci ay weer a ngi nii ñu ngi fa nekkoon teg yoxo dëkk ba lépp li ñu xayma nag ci dow làqu yi limu na ci ñeent fukk ak juróom fukki junni doomi aadama yoo xamante ne daw nañu jënd ak jaay bi ci wàllu gànnaay yi àdduna wërngal këpp nag dox nañ ci jéego yu gën a takku ci atum 2016 bi ñu génn li ñu jënd jaay ko ci wàllu ngànnaay nee nañu mësula am ci àdduna ba ñu jógee ci guerre froide bi ba léegi maanaam ci atum 1990 yi ba fi mu toll nii lu ni mel nag li ko gën yokk bokk na ci guerre ba nga xam ni moo am ca Yemen te dëkk yu mel ni Arabie Saoudite ak Émirats Arabes Unis soobu ci lool loolu nag tax na ba ñaari dëkk yooyu jënd nañ ay ngànnaay yu bëree bëri lépp nag ngir mën kaa jëfandikoo ci boobu la guerre nemmeeku nañ tamit ñuy woyee Inde foofu tamit lu toll ci fukk ak ñett ci téeméer yoo jël ci jënd ak jaay ci wàllu ngànnaay ci àdduna wërngal këpp ñoom ñoo ko yeyoo mel ni daal foofu li tamit dafa mel ni armes yi wala sax ngànnaay yi yitte woon nañ ko lool ci jamono yi ñu jeexalee xibaari bitim réew yi fële ca Liban Marine Le Pen di candidate extrême droite bu France bi ci ab tukki nemmeeku bu mu fa amal dimanche ba léegi nag tey jii gise na ak mun nañu jàppee kooku ni xalifay Beyrouth maanaam kilifa diina gi fa gën a màgg muy grand mufti gannaaw jàkkaarloo boobu nag li ñu nemmeeku moo di soxna si loon boppam benn yoon te artu woon nañ ko dànkaafu ko ne ko balaa ngay toog ak waaj yi ndax kilifa gu mag la ci dëkk bi wàllu diine da koo gëm lool mu soob ko lool da war a muur sa bopp balaa ngaa toog ak moom soxna si nag gise na moom ci talaata gi waaye tey deful lu ni mel li mu ci indi nag ci ay kàddu moo di ci atum 2015 ba muy gisee ak imam bu Caire nekk ca péeyum réewum loon boppam kon nag suy gisee ak kilifa diine ga nekk ca Beyrouth maanaam ca Liban du mën a muur boppam jaajëfati soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke tomb boobu ñeel xibaaru biti réew yi buural xibaaru marxi ci kàllaamay Kocc ci leeru jamono juróom-ñetti waxtu xibaar yi na dellusi ci kàllaamay français lay doon ak soxna Ramatoulaye Ba Jenn cant ngërëm ñeel bu baax kon Serigne Cheikh Tidiane Diop mi fare woon ci xarale gi soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke ci jàppandal gi di réalisation bi yéen itam cant ngërëm ñeel leen bu baax ci teewlu bi yàlla buur ñu boole moom ak lu ñu moom di moom te kenn du moom teeloon ñu kaw ba ñu suuf bànduñoo ak suuf ñun ñëpp ànd mabbu ci yàlla nañu defal jàmmi xool xel yaram booleeg làq ñu fu yàq yëggul jërë ngeen jëf